الشيطان فقاتلوا نغن مرانتك أولياء الشيطان ويمين دوجي شيطان نغن لن نط إن كيد الشيطان pexeem seytaan ci way gëm yi kaana nekkoon na daifan di aji doyadi yàlla ngi leen di jox ndigal fii pour ñu xeex jullit xeex nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak ñett ci màkka amuñ ndigal ci xeex amuñ ndigal ci fayu بيالا جهلن ديجل شلول يالا يوهنن فهم شيطان ودوية للا لولو تكاو ويقم يالا ويطان يالا وقو كنين شيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لأمن التواكب من الغابين ثم جامي أنا ويقمي أما تاكن شنو moo tax it fii mu wax ne pexem seytaane lu doy di la waaye lool ci kaw ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla lam tara ndax gisuloo ila alladina jëm ci ñaaña xiira waxeef nañ lahum ñaayal leen kuffu kuffu fekk leen ay seeni loxo maanaam bañ leen teree xeex ca màkka la lii wàcc leen waxoon ne kuffu ay jéekum wa aqimu salaata wa atu zakat Makka dañ leen ne téye leen seen loxo julli leen rek joxe leen asaka waaye bu leen per te boobu ñoom ñi ngi ne ngéej ñi may leen ndigal ci fayu yàlla di wax ne gisoo ñi nga xam ne ñoom lañ waxoon ne leen téye leen seen loxo yi wa aqimu te ngeen taxawal asalaata julli wa aatu da ngeen joxe zakat asaka فلما كتب بور في عليهم تنيوم القتال قيح إذا فريق أمتلف إذا أمتلفت فريق بكر منهم تنيوم يخشون أن يرقل الناس نيني ما نام هيفيري ينا قمنا ديمبو بين لن آية قيح نرين بلين قيح جل لن جوحي لن أسكا تاينك بين لن جوحي لن جوحي am ci ñoom ñoo xam ne ñi ngi ragal xeebéer yi te xasiyatillaahi kem ni ñu ragalee yàlla a ashadda wala gën caa tat xasiyatan ci ragal ñi nga xam ne démb dañ ne woon ngéej ñi jox leen ndigal ñu xeex tey nag bi ñu leen joxee ndigal ci xeex am ab kuréel nga xam ne duwul ñëpp waaye am na ci ñoo xam ne dañoo ragaloon xeebéer yi ba mel ni ni ñu war a ragalee yàlla wala ko wa qaalu ñuy rabbana yow borom suñu li ma katabta ma lu tax nga waral alaynaa ci ñun alqitaala xare lawla axartanaa te du terewoon nga mujjeeñu ilaa ajalin jëm ba ci dikk xaribin bay aji jege yàlla nag di leen tontu nga xam ne ñu ngi doon wax naan lu tax yàlla yéexewut mbiri xare yi yàlla ne qul mataaw qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam mataaw dunia yóbbali àddina qalilun aji tuuti la wal axiratu alaxira xayrun moo gën li ma ñeel ka xam ne ittaqa ragal na mbugalam yàlla yàlla leen di wax ne àddina jàtt sukkandiku ndax yóbbali àddina lu tuuti la waaye àllaaxira moo gën ci ku ragal yàlla wala laaxiratu xayrun laka min al ula wala tuzlamuuna te deefu tooñ leen fa lan lu mel ni ki buum gi ci buum gi ci saalab tàndarma bi yàlla dafay tudd ay baat yoo xam ne yépp da ngay gis ne ci bii bi nga xam ne mi ci la arab yi di dund ci la leen di wane alquran dana tudd naqiran dana tuddu katmir dana tuddu fatil yi yëpp ci tàndarma la naqir ci tàndarma mooy saalab tàndarma bi bën bën bi ci ne du tuuti loolu katmir mooy mbalaan mi nga xam ne moo wër tàndarma bi boo bee moo war xoox bi tàndarma bi bu ubbee tàndarma bi xoox bi boppam saal bi am na ab balaan su oyof su ko wër loolu mooy xitmiir fatil nag mooy tàndarma bi saal bi ci saal bi da nga gis benn as bu sew bu ci tëdd noonu loolu mooy fatil yàllaa ngi wax ñii nag ne leen àddina lu tuuti la te àllaaxira moo gën ñeel ku ragal yàlla te yàlla du leen tooñ lu em nit ki fatiil bi nga xam ne moom moo nekk ci bu mag moom nekk ci saalab tàndarma bi ay na maa takunu fu ngeen mën a mën a nekk yudrikkum dana jot leen almawtu dee wala kuntum doonte nekk ngeen fii burujin ci ay taax yu mushayyadati yële yu yëkkati doonte da ngeen ci ay étage yu kawe fu ngeen mën nekk dee mën laan faa fekk kon nag ragal dee bu mu tax bu yàlla joxee ndigal ci xarek noon yi ngeen di bañ a topp ndigal yàlla ndax dee moom kenn mënu koo daw la woykati arab bi wax wa man lam yamut bi sayfi maata bi xayrihi taaddadat al asbaabu wal mawtu waaxidu ku deewul ci jaase it danga dee ci leneen ndax eh, nit ñi sellal yu leen gën a óolu pour ñi gën a bëri ci seen kaw lal yi rek la ñu dee wa ndam jot na leen maanaam yahud yi xasanatun ne tax ak dund ak yaatal ci dund yaquulu ñuy wax haadihi li le maanaam xéewal gi bu leen xéewal ñëwalee ñu ne min indillahi aji nekk la tukkee fi yàlla wa in tusibhum ndam jot na leen sayiatun mu muy ko ak nattu yaqulu ñu wax haadihi min indika bu leen lu baax jotee ñu ne yàllaa ñu ko jox waaye bu leen nattu jotee ñu ne yow lii ci yow la jugee yow Muhammad di di ko di ne qul waxal yow Muhammad ne leen kullun lépp muy lu neex ak lu naqadi lu baax lu bon min indillahi tukkee na fi yàlla fa maa li haulaai alqawmi ana lu ñaal ñi lee ñi le nit laa yakaaduuna duñ jege yafqahuuna di dégg xadiisan wax ana lan moo tax nag ñi mënuñoo dégg lu lu nattu yeeg yi lépp ci yàlla la jógee ana lu tax ñi amuñ dégg maa asaabaka lu la jot yow nit ki min xasanatin ci lu baax fa minallaahi aji nekk la tukkee ci yàlla wa ma asaabaka lu la jot min sayyi'atin ci ñaawteef ak nattu fa min nafsik lu la jot ci ñaawteef ci sa bopp la jugee gi nga fii yàlla waxee na fi ñaari làmmiñ qul kullun min indillaahi la ñu ko wax lépp ci yàlla la jugee ba pare nag waxaat ci làmmiñi ah, xikmatu ne lu la jot ci lu baax ci yàlla la jugéen lu la jot ci lu bon ci yow la jugee yépp yàllaa koy bind waaye jaam bi yàlla def koo bind jox ko xel jox ko dégg jox ko xol jox ko ay jumtukaay wan ko yooni jub wan ko yoon wu baax léegi nag lu lu bu toppee lu baax ba am lu baax ba tey ci ngëneel yàlla la jugee waaye bu toppee lu bon ba am lu bon ba tey moom moo ko fàggul boppam وارسلناك يونن لا يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس نيهل نيه رسولا غير وكفى دين بالله ان شاء الله شهيدا اجي سيده كينا يا الله لا يوني يا الله دينا دينا لا ما يتعين كتبنا الرسول يننتو فقط اطاع تقنا الله يا الله ومن تولى كدد فما ارسلناك يوني الا عليك حفيظا لي اجي وتو seeni jëf yi alayhim ci ñoom ku ku topp ku la topp yàlla la topp ku la dëddu nag bañ a uyu sa topp bi yow yàlla force waxul la pour nga forcer nit ñi wax na ko feneen lasta alayhim bi musaytirin wa ma anta alayhim bi jabbarin zakkir bil qur'ani man yaxaafu waidi duuloo mbër moo xam ne ni yaay forcer nit ñi di leen teg ci yoon wi wane yoon nga man ku la topp nag yàlla la topp ku la dëngee yow wax def nga sa wareen wa yaquluuna ñiy wax ñoom naafeq yi buñ la dikkalee di la wax ne taatun ak suñ mbir mooy topp la ñun dañ laa topp rek loolu la ñuy wax yonent buñ buñ teewee ci kanamam fa ida baradu ndam génn nañ min indika tukkee fi yow bayyata xéene nëbbu taifatun kuré minhum ci ñoom xeer alladi nderal eh, lu may la nga xam ne taqulu danaa wax ko buñ teewee ci yow di la wax ne ñun kay sa mbir la ñuy topp waaye buñ génnee jugee fi yow ñi ngi denc ay pexe yoo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom lañ lay wax boo teewee di la wax ne dañ lay topp fekk mooy la moom moo nekk ci seen xol yi wallaahu yàlla yaktubu dana waral dana bind maanaam digal xafada yi ñi bind maa yu bayituuna la nga xam ne moom la ñuy denc ci seeni xol yi ñu bindal leen ko ci seeni téere jëf yi faarit da nga dëddu anhum walis ñoom wa tawakkal da nga wàkkeelu alallahi ci yàlla doyloo ko وكفى تدعينا بالله جل وكيلا كن وكيل لجموم أفلا يتدبرون ndax duñu settantal alquran alquran ndax duñu settantal alquran settantal maanaa yi nga xam ne moo nekk ci alquran pour jubee ci walaw kaana bu nekkoon min indi xayrillaahi tukkee ci kudut yàlla la wajadu kon ñu fekk fii ci moom ixtilaafan uutee kasiiran buy aji na xanaa xooluñ alquran kuy indi alquran da nga ko ci eh, bët boo xam ne bëtëb insaaf la waaye boo ko xoolee da xam ne bu nekkoon ku jugee ci lu dul yàlla da gis ci uutee bu bari ndax doomi aadama waxam dafay uutee ci uutee màggaayam uuteeg xam-xamam uuteeg tayam ak ëllëgam waaye alquran siyaax bi nga xam ne moom la yàlla eh, rabbee alquran ku dégg arab rek di ko xool mën na laa jubal buñ bu fekkoon ne ci ku dul yàlla la jugee danañ ci gis firihante alquran du firihante waxu dara fii nii weddi ko feneen alquran du firihante ci bidalam du firihante ci maanaam du firihante ci taarix yi nga xam ne mu ngi koy nettali fa ida jaa wa ida jaahum def dikkal na leen amrun mbir tukkee maanaam ci xare yi nga xamne mom la yonentou bi def min al amni ci kóolute manam bañ demé ci xare bi ndax dañoo am kóolute moy ne am nañ ndimbal ci xare bi awul khawfi wala ragal moy ñak nañ fa azaawu ni siwal bi ci mom buñ laccé buñ déggé dara ci mbiri xare xare bi dañ koy siwal wala raddu bu fekkone dañ ko delloo manam xabar bu ñi dégg ila rasuli jëm ci yonent bi wa ila ulil amri jëm ci way méngoo mbir yi minum ci ñoom te mooy borom xam-xam yi ci ñoom ni ki mag yi sahaaba yi la alimahu kon xam ko alladina ñi nga xam ne seen bituunahu danañ ko topp minum tukkee ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañ koy jéem a bit bitlu di xam la nga xam ne moo nekk ca biir stanbata boo ko waxee da nga gis ne ci li biiru rek la firi mooy ñi nga xam ne dañ koy topp ba xam li ci biir bu fekkoon ne la leen réer ci mbir moomu dañ koo delloo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ulul amri ci ñoom kon ñoom danañ xam li nga xam ne moom moo moom lañ war a topp ci mbir moomu walaw laa fadlullahi bu taxutoon ak ngëneel yàlla aleykum ci yéen bu taxutoon ak ngëneel yàlla bi nga xam ne moo leen dugal jubal leen ci lislaam wa rahmatuhu ak yërmandeem nga xam ne mooy alquran la tabaatum kon ngeen topp cheytaane cheytaan bu taxutoo nag ngëneel yàlla mi leen jubal ci lislaam jubal leen ci alquran topp yonentu sallallahu alayhi wa sallam kon kay da ngeen topp cheytaane illaa qalilan ndere aji néew fa qaatil xeexal yaa muhammad fi sabi yow muhammad na nga xare fi sabilillahi coon yàlla laa tukallafu togguñ la illa nafsaka ndere bopp sa togguñ may sa ñeneen ñi nga xam ne boo leen ñu uutu yow amoo bàkkaar ci loolu waxarit na nga sonj al way gëm ci jihaad ak xemem loo ci asa allahu xaj na yàlla an yakuffa ba mu fekk ba sa lazina ñaaña maanaam xareet ñooñu nga xam ne kafaru wéy dinañ yàlla yàlla sax mën na leen a fegal xareet xéeféer yi wallaahu te bu leen ko fegalu toon sax wallaahu yàlla ashaddu moo gën a tat ba'san ci nattu moo gën a tat kay xareet gën a tat xareet noon wa ashaddu te moo gën a tat tankiilan ci mbugal man yashfa ku ramm ne shafaatan xasanatan way aji rafet manam moy ram go xamne dafa dëpp sharia ngeer nekku ci yëkkun nek lahu ñeel ko nasibun cer min ha tukkee ci mom ko def ram go xamne ni dafa dafa sharia tu dana ci am yool ci lolu wa man yashfa ku ramm na shafaatan ram sayyatan bay aji ñaaw niki moy bo xamne ne uute di sharia gëlam yëkkun nek lahu ñeel ko kiflun cer تباكات من هاتو تكيتموم وكان الله وكان الله مستدني الله مقيتا بأجي أتن على كل شيء له فإذا حييتم لم يبنن لن بتحية شنيو ملني نبني لنا نارا السلام عليكم فحيو نجن دلو أجي نيوجي بأحسنا شجن تعرف منها شي نيوم بي bu la nit nuyoo ne la assalaamu yow war nga koo nuyu nuyu bu gën a rafet nuyoom bu la waxee ne assalaamu alaykum nga ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu moo gën a rafet nuyoom bi aw rudduha wala nga delloo ko lim la nuyoo wala bu la nuyoo ne la nga ne ko waaye nit ne la assalaamu nga ne ko saba assalaamu alaykum nga ne ko eh, eh, eh, Cissé Touré loolu du nuyo bu la nit nuyoo yàlla ne delloo ko lu gën a rafet lum la nuyoo asalaamaaleykum lu ko gën a rafet du mooy nga wax ko sant du mooy nga wax na nga def mooy nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu boo mënta àgg foofu aw rudduha nga delloo ko lam la nuyoo nga ne ko wa aleykum salaam inna allaha naka yàlla kaana musta dañ xasiban di aje xisaab ala kulli ci lépp lëf yàlla nag mu ngi wattu lépp loo xam ne nii jaam bi daf na ko ngir ne ngir mu fay ko ko bu defee lu baax mu fay ko ko bu defee safaan mu fay ko safaan boobu mu ne eh, sunna génne na ci nuyoo yi li nga xam ne ni ki nuyób xeeféer wala nuyoo koo xam ne ni eh, nit yi bidaa la mooy kii nuyoo nuyu boo xam ne du nuyoo comme li nga xam ne moo gën bari bëri wala nuyoo koo xam ne faasiq la wala nuyu koo xam ne koo xam ne nii mu ngi mu ngi ci douche di faj aajo ñooñu seeni nuyoo duñ duñ ko delloo mu ne sib nañ ko sax lu may ci ku mujj gi mu ne ku mel ni xebeer bu la nuyoo delloo ko la wax rek mu ne asalaam nga ne ko waaleyka li mel ni eh, yahud yi nga xam ne bañ daan dañuy ñëw ni dañuy nuyu nuyuñ ko dañ ko doon ñaan yàlla ñëw naan ko assaamu assaamu alayka saamu mooy dee bu ko waxee rek yonent bi ne leen wa alaykum impovu الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله علم على الجلالة لا إله إلا هو والله لا يجمعنكم من قبوركم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه أقسم تبارك وتعالى أنه لا بد أن يجمعنا يوم القيامة ثم يفرقنا فريق في الجنة وفريق في السعير ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وفريق في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره ليدعو العبد إلى كثرة ذكر الله تبارك وتعالى فلا بد من ذكر الله باللسان أولا ثم الذكر بالقلب ثم الذكر بالروح فعند ذلك يستغرق وجوده وجود ما سواه فيفنى العبد ويفنى الوجود ويحصل التوحيد الحقيقي والحياة الأبدية ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة على ثلاث مراتب صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى موت الإنسان من مات فقد قامت قيامته والوسطى موت جميع الخلائق من نفخة الأولى والكبرى بعث الخلائق وحشرها إلى يوم القيامة من نفخة الثانية أقسم أنه لا بد أن يجمع الخلائق وهو إذا جمعهم لا بد أن يفرقهم فريق في الجنة وفريق في السعير وفريق في مقعد صدق عند ملك مقتدر ومن أصدق من الله حديثا قولا هذا خبر جاءنا من الله تبارك وتعالى ولا أحد أصدق منه حديثا كل محدث يتطرق الشك إلى حديثه هل حق أم كذب إلا هو تبارك وتعالى فحديثه لا يتطرق إليه شك بل هو حق فلذلك ذكر أنه أصدق القائلين ولذا ورد بالحديث يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعد الموت وأنا ابتدعته والإعادة أهون من الابتداع وأما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد فما لكم في المنافقين فئتين لما رجع الناس من أحد وهموا باللحوق بالكفار اختلف الناس فيهم فقال فريق نقتلهم وقال فريق لا فمنهم من قال كفار ومنهم من قال ليسوا بكفار فما لكم ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين فرقتين والله أركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي إن الله تبارك وتعالى قدر عليهم أن يرجعوا من الجهاد ويلحقوا بالكافرين بسبب كسبهم الكفر والعصيان أتريدون أن تهجوا من أعطى الله أي تعدوهم من جملة المهتدين ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى ودوا لو تكفرون كما كفروا هم كفروا وتمنوا كفركم فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة هجرة صحيحة تحقق إيمانهم كانت الهجرة شرطا في الإيمان في بداية الإسلام فمن ادعى الإيمان ولم يهاجر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب حتى نسخ بفتح مكة بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح المنافقون اختلف المسلمون فيهم فبعضهم قالوا إنهم كفار وبعضهم يقولون إنهم مسلمون والله أركسهم بما كسبوا إن الله تبارك وتعالى هو الذي ردهم إلى الكفر فكان العمل حقيقة من الله تبارك وتعالى إذ هو الخالق للعبد ولأفعاله ومجازا من العبد من هنا افترقت الفرقتان الجبرية والقدرية الجبرية يقولون لا فعل للعبد أصلا فكل الأفعال أفعال الله تبارك وتعالى فإذا ليس على العبد ذنب ولا شيء لأنه لا عمل له وضلوا لأنهم أسقطوا التكاليف والقدرية قالوا إن العبد خالق أفعاله العبد قادر على أن يخلق أفعاله فلا مدخل لله تبارك وتعالى في أفعال العبد فكفروا بنسبة بنسبة الفعل إلى غير الله تبارك وتعالى وأهل السنة أخذوا بجبر صغير يقولون إن الله تبارك وتعالى أقدرنا على الكسب فلنا الكسب والله يخلق العمل عند الكسب والعارفون جمعوا بين عقيدتي الفرقتين الضالتين فاهتدوا إلى سواء الطريق وهم حقيقة لا يرون الفعل لغير الله تبارك وتعالى وهذا ليس بجبرية عندهم بل بالمشاهدة والعيان لا فاعل في الوجود إلا الله تبارك وتعالى ومع ذلك ظاهرا يتكلفون الأعمال الصالحة ويتنبون الأعمال السيئة كأنهم خالقون أعمالهم فأخرجوا نتيجة نتيجة بين الخصلتين من بين فرث ودم أخرجوا لبنا خالصا وهو الصراط المستقيم الله تبارك وتعالى نسب الفعل تارة إلى نفسه وتارة إلى غيره قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله يتوفى الأنفس حين موتها الإمانة, الإماتة حقيقة من الله تبارك وتعالى وحيث أمر الملك بتنفيذ هذا الأمر فباشره الملك فكان الملك هو المتوفي والمتوفي حقيقة هو الله تبارك وتعالى والعبد أيضا لما خلق الله تبارك وتعالى خلقه الله وتجلى فيه جعل فيه قوة وعقلا وعلما وتمييزا يقدر على أن يكتسب عملا صالحا ويجتنب به عملا سيئا والله تبارك وتعالى هو المتولي للخلق هذا هو الصراط المستقيم من قال إن الفعل لله تبارك وتعالى فقد صدق ومن أسند الفعل إلى فاعله مجازا فإن القرآن نطق بمثل هذا أتريدون أن تهدوا من أضل الله الله تبارك وتعالى هو الذي أضل من ضل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله بعث الشيطان مزينا وليس إليه من الإضلال شيء وبعثني داعيا إلى الهدى وليس لي من الهداية شيء ودوا لو تكفرون كما كفروا من تمني أن يكون من تمنى أن يكون أحد كافرا فكأنه كافر لأنه أحب الكفر ولو لأي شخص فتكونوا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا وتوالونهم ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم إلا الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالأمان لهم كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن عويمر الأسلمي أو الذين جاءوكم وقد حصرت ضاقت صدورهم عن أن يقتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا أن أن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتال وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما بعده من منسوخ وما بعده منسوخ بآية السيف ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبكم فلقاتلوكم ولكنه لم يشأ لم يشأ فألقى في قلوبكم الرعب فإن اعتذروا بكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام الصلح إن قادوا فما جعل الله عليهم سبيلا طريقا بالأخذ والقتل ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم من أسد وغطفان كلما غطفان كلما أرادوا كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعوا إلى الشرك اركسوا فيها وقعوا أشد وقوع فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلم ولم يلقوا إليكم السلام ويكفوا ويكفوا ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث ثقفتموهم ووجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيهم لغدرهم وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ الله لا إله الله يا الله موي موي علم يا قمنا xam ne moo gën a ràññeeku ci asmaa wa dañ koo gis nekkoon yàlla def ak yow mu ne yàlla daf maa dugal àjjana ci li ma wax ne alam bi nga xam ne mooy aaraful maarifi mooy allah mu ne ci loolu la ko yàlla dugalee àjjana loolu li ci nit mën a jàngee mooy métier mu baax mu nekk nit mën na cee defee lu ko yàlla dugalee àjjana fekkee ci naxu rek lay wax ba àgg ci ci dayo yoo xam ne amee na ci àjjana allahu yàlla laa ilaha déet buur illaa huwa ndera moom ma annakum alsana leen boole ngëñ la ilaa yowm alqiyaamati jëm ci bési pénc laa ray ba déet sikk nag fii di nekk ci bési pénc yàlla moo gëñ ne yàlla dana leen boole dana boole jaam yépp bési pénc génne leen ci seen xabru yi pang leen taxawal leen ci kanamam ñi jëm àjjana jëm àjjana ñi jëm safara jëm safara dana la boole ñépp ci boole waay boobu ci la leen di tasaare nag ku nekk jëm ñooñ day joor jëm seen day joor ñoom càmmooy jëm càmmooy bàyyi ne am nag cër boo am na xaaj boo xam ne ñoom ci maqaadi sidqin lañ nekk ñooñu ñu ngi ci péeb yàlla ba àjjana lu mu foor foor péeb yàlla ba ak gën a foor mu ne yàlla bëril na tudd baati allahu ci alquran ngir oo jaam yi pour ñu bëril luñ koy tudd wadkurullaha kasiran laallakum tuflixuun la yàlla wax tudd leen yàlla lu bëri ngeen texe bàyyi na foofu jaam bi du tudd yàlla ci ci làmmiñam mooy njiitu ba àgg ci tudd yàlla ci sa xol ba àgg ci tudd yàlla ci sa roox boo àggee ci loolu nag danga dem ba nga xam ne tudd gi dana labal labal nekkam moom yàlla tabaraka wa taala dana labal nekk ak lépp lu may moom tabaraka wa taala boobaa jaam bi jeex nekkam ngi tim jeex mu am tawxiid ak dëgg-dëgg am dund bi nga xam ne mooy dund bu sax bi nga xam ne du jeex tawxiid googu Cheikh Tijaani moom lay juñu ne wax ne ida kaana hunaka muwaxidun wa muwaxadun fa tamma islaani ayna tawxiidu jaam bi daal feeg mu ngi gis kii kii wéetal ak ki muy wéetal sax ba léegi ñaaran fa mu ne kon ana tawxiid bi mm-hmm. kon tawxiid dëgg-dëgg jaam bi dana dem ba nga xam ne moom dafay do dootul yek nekam gi ngir deugal gi deugal nek ak yalla gi nga xamne moy deug tabaaraku taala ni ko degul nak dañ koy firé lu leen neex waye li doon maandu moy loo degul rek nga maandu bu jambi agge fofu foofu na ci tawhid gu wer àgg na ci dundu ki nga xamne ci moy dund ak gi nga xamne moy mooy dund ak abet ndax ki dund yàlla la yàlla moo gëñ ne danaa boole jaam yi yowmal qiyaamati bàyyi mu ne bés penc ci ñett la bu ndaw bu digg doom ak bu mag bésa penc bu digg bu ndaw mooy nit ku nekk bés ba mu dee rek bés pencam taxaw na bu digg doomu mooy bu ñu walee burta bi ñi nekk ci kaw suuf yépp dee wal gu njëkk ga bésa pénc bu màgg nag mooy boo xamee ne yàlla dekkal na jaam yépp walaat bufta bi ñépp dekki taxaw ci kanam yàlla loolu mooy bés pénc bi gën a màgg yàlla nag moo gëñ allahu laa ilaha illa huwa la yajma'annakum dafa gëñ ne yàlla daa leen boole boole mbindeef yépp yowmal qiyaamati تبولين بوله نتلينا دالين دف نياري قاج فريق في الجنة وفريق في السعير قاج بيجم أجانا قاج بيجم سفرة تدوني مقعد سفقين جمليك مقتدر يا لنا ومن أصدق من الله حديثا أنا كنت دق يا الله وقت باينه خبار بيتي يا الله لني te yàlla kenn gënu koo dëgg wax moom la wax nii bàyyi mu ne waxkat bu nekkat waxam mën nañ cee sikk di sikk naan ndax am naag amut bam des yàlla yàlla du fen ndax fen ñaawteef la wàññeeku la dana bañ fen sax léeg-léeg mu ragal tax mu fen yàlla ragalu dara bay fen léeg-léeg mu xemem dara tax mu fen yàlla xememul dara ndax moom moom lépp te doyul na walis lépp moo tax lu mu ñuy wax rek dëgg la yàlla moo wax ne alaxira dana am ba léegi nag da ngay gis ku wax na waaw ah waaw bis yawmul qiyaama ndax loolu luy am la da luy am la yàllaa ko wax yàllaa ko wax ba pare gëñ kon ñi xam ne loolu lu xam la te dana ñëw mu ne root nañ ci hadis maanaam hadis kursi yàlla wax ne doomi aadama ji daf maa weddi te xellu toon ci moom muy fen mu may fenloo saagana ma xas ma xellu toon ci moom mu di ma xas fenloo gi mooy dafay wax naan ndax yàlla danañu dekkalaat gannaaw bu nekkee ay yax yu fëna yàlla ne te maa ko bind ko ci tukkeewul ci dara loolu kay moo gën a yomb delluwaat ko amma xas bu ma xas mooy bu waxee ne yàlla jàpp na doom te man kenn laa ku wéet ku jublu ci mboolem aajo yi juruma juruñ ma aw ma ne fa maalakum analu ñaan leen ba ngeen nekk fi etee di ñaari kuréel fil munaafiqiina ci naafeq yi lu tax ngeen am nag ñaari xalaat yu wutee ci naafeq yi ba nga xamee ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa jugee ci xare Uhud bugga songaat xéeféer yi nit ñu utee fi saxaaba yi utee ñenn ñi ne daañ leen rey ñenn ñi ne déedéet am ñuy wax ne ay xéeféer lañ am ñuy wax ne déet lool ci xàqi munaafiq yi yàlla leen lu leen jot nag ba ngeen mujj di uutee ci mbiri naafeq yi di am ñaari kuré ci ñoom wallaahu yàlla arkasahum delloo na leen bi maa kasabu ca lañ fàggu nañ ko ci weddi ak moy ci la leen yàlla delloohee bañ xeeg nekk di ay xeeféer ci sabab li nga xam ne moom lañ fàggu ci seen loxo ci ay jëf yu ñaaw ak i weddi yàlla ne aturiduna ndax da ngeen namm an ba ngeen jubal man ka nga xam ne adalla bi maanaam adallahu réeral na ko allahu yàlla ndax da ngeen a jubal koo xam ne yàllaa ko réeral ngeen jël ñi nga xam ne ay naa fekk lañ juguñ ngeen bugg leen a boole ci kuréel buy gëm yi wa man yudil kuréeral na ko allahu yàlla falan tajida doo fekk law ñeyal ko sabilan yoon wuy jëme ci njub ku yàlla réeral doo jub kenn man laa ubbil yoon waddu mébét nañ ñooñu ngeen di xalaat ndax julit lañ ak jum julit waddu dañoo mébét law takfuruuna bu ngeen weddee kama kafaru comme niñ weddee ñoom amuñ ne dañoo weddi waaye dañuy mbébét sax yéen ngeen weddi comme ñoom fa takunuuna kon ngeen ngeen di nekk ak sawa an di ajaxamoo ak ñoom ci weddi fala tattaxidu bu leen jàpp minum tukkee ci ñoom awliya ay xarit yi nga xam ne da leen di méngoo donte ñoom dañ leen di feeñalal iman gëm yàlla te fekk lañ ne bu mooy kéeféer xatta yu haajiru ba tew ñu gàddaayee fi sabilillah boobu jamono ba yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee duñ nangul kenn ne gëm na yàlla lu may mu gàddaay ci yoon yàlla gàddaay charte la woon ci tàmbaleeg lislaam bi pour tegtale ne jaam bi gëm na yàlla képp koo xam ne dangaa ootee gëm gëm ci jamono boobu te gàddaayoo jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa fen nga ba loolu aaya ba xadiis yi yonent bi wax ne laa hijrata ba'da al-fathi lu may gannaaw boo xamee ne yonent bi nee ni ubbi na Makka nga xam ne Makka dafa mujj nekk réewu lislaam naafeq yi julli ñi dañoo uteewoon seen mbir ñenn ci ñoom di wax ne xéeféer lañ ñenn ci ñoom ne ay jullit lañ yàlla wax leen ne yàlla moo leen delloo ci kéeféer ci sëb bi li nga xam ne moom lañ toggoo ci ñaawteef fii yàlla boppam la wéer jëf ji moo tax mu ne bàyyi ne jëf xaqiqatan ci yàlla la tukkee ndax moom moo bind jaam bi bind jëfi jaam bi waaye ci majaaz ci jaam bi la tukkee أنا فنان الفاعل حقيقة هو الله ومجازا من أسند إليه الفعل التام جفيب جفيال الله di wax ne jaam bi jëfu dara ci cosaan yàlla moo jëf yépp kon kenn amul bàkkaar ñoom loolu lañu wax ñi réer réeral bi nga xamee ne dañoo neenal ware bi xadariye ñoom di wax ne jaam bi moo bind jëfam jaam bi mën naa bind moo bind jëfam yoon yàlla nekk ci jëfam yi ñoom it ñi réer bi nga xamee ne génnee nañ yàlla ci lépp ahlu sunna ne dañoo boole dara ci jabriya ne jaam bi yàlla moo ko toggu ba pare attan loo ko nag ci fàggu yàllaay jëf ànd ak loolu ñi ngi toggoo ci zaahir di toggoo jëf yi baax yi di moytandiku yu bon yi mel ni ñoom dañuy jëf-jëf ku jàpp ne yow jëf yi danga cee toggoo kon daal ñoom xam nañ ne alfailu xaqiqatan wallah waaye xam nañ ne ànd ak loolu yépp jaam bi nga xam ne tim moom lay médias bi ci moom la jëf yi di feeñee am na ci wareef looloo tax ñoom ñuy toggoo di def lu baax di toggoo di moytandiku lu bon loolu moo gën a wér moo tax ñi boole mu ne ñi ñi am siraatul mustaqim yoon wu jub mi nga xam ne dafa mel ni ni yàlla melalee labanan xaalisan mi nga xam ne min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayigan li shaaribina yàlla mi génnee ci diggante eh, ndumbaa jang yi nga xam ne mu ci biir yi Euh, jële bi jur gi ak deret gi yàlla sos meew mu sell ci diggante boobu bàyyi mu ne noonu lay siraatal mustaqim mel ci diggante boobu noonu la tim gis-gisi aarifin yi nga xam ne xam nañ ne ki jëf dëgg-dëgg yàlla la waaye kiñ togg jaam bi la kon jaam bi dafa war a toggoo liñ ko togg te terewul yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëf mu ne loolu mooy siraatal mustaqim mooy yoon wu jub bu nga xam ne sell na ba mel nii meew mu sell nga xam ne moom la yàlla génnee ci diggante lu mbaajang yi ak ak deret yàlla léeg-léeg mu askan jëf ji boppam comme ni nga commencé ni nga jàngee commencé qul kullu min indillahi la waxoon ba pare wax ne ma asaabaka min xasanatin fa min allah wa ma asaabaka min sayiatin fa min nafsik gis nga ne feyam ngi askan jëf yi boppam wa léeg-léeg mu askan ko keneen comme ni wax fii qul yatawaffaakum malakul mawti allazii wukkila bikum fi yàllaa ngi jël dee askan ko malakul mawti waaye nga gis mu askan ko boppam allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha dee kon dëgg-dëgg ci yàlla la jógee waaye bam askan jëf fekk yàlla moom moo méngoo bind ku xam ku jëpp yoon woowu yaa nekk ci siraatul mustaqim doo toog rek di wax ne yàllaa bind yëpp man dara waruma ci doo toog rek di gëm ne yàlla yoonam nekku ci man maa bind ni kee falaasife yi nga xam ne dañuy wax ne yàlla moo bind àddina bi waaye ba mu ko bindee rek xoolaatu jëm ci boobu la ci génn yoonam nekkatu ci loolu wéru alquran mu ngi tudd lu ngeen jëf ci ki ko jëf ni ki turiduna an tahdu ma adallah fii yàllaa ngi weer jëf ci boppam ne moom moo réeral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci xadis ne yàlla dafa ebal أن بأجي حمو فلا تتخذوا بلين جاكولين أولياء أن يوين منغو سين بسين خريف يوين منغو حتى يهاجروا بطنيو قدايا في سبيل الله شون يالا بلين نقول كان إيمان بم قدايا شون يالا فإن تولوا ندم ضدنا صحت لنك فخذوهم جاكولين لين أي جار جار واقتلوهم رايلين لين حيث وجدتموهم فين لين فك wala tattaxidu bu leen jàpp waliyan aji méngoo minum tukkee ci ñoom te ñooñu bu leen leen xaritoo bu leen jàpp ne ci yéen lañ bokk loolu nag laaya jooju la wax ne aayaay yi nga xam ne waral na xeex ni kii faxtulul mushrikina ay soo jëttumuhum folli na ko qaatiluhum xatta laa takuna fitna ba tey yooyu yëpp aayaay sayf la walaw shaa bu sooboon allahu yàlla bu sooboon yàlla mu sonju leen نصلتهم كم نصنجل عليكم تيين فلقاتلوكم كن يقياه يين وعيسو kullama ruddu waxtu delloo fee leen ilal fitnati waxtu wuñ ooyee leen ilal fitnati jëm ci fitna ni ki shirk bokkaale yàlla urkisu ñit tàbbaleef leen fiyaa ci moom tàbbal bu gën fa in lam yactasilukum ndam beruwuñ leen bañ a bàyyi xeex